copain tey tey yow eh, eh, seen TV moom dootuñu dootuñu wax Aba Diatta ah waaw maa yaa doon sama directeur <laughs> non non yow yaa nekkoon sama directeur yaa ma jàngal Trafic News léegi am na am na kuy wax Aba léegi Aba tey boo gisee lii tey lan ngay wax askan bi ñëw soutenir yow waaw voilà merci dañuy leen di gërëm yéen waa Sénégal di la gërëm Pape Maguette parce que yow yow yaay sama directeur nga su ma nekkee trafic tey su may liggéey tey yow yaa tax yaa ma jàngal yaa ma defal lépp lii nag tey dafa doon loo xam ne lu lu lu lu lu lu xaw a daw yaram la xam lu tax parce que ñun ay responsable lañ depuis presque dix ans onze ans ñu ngi fii suñu salaire musta manqué mois bi passé le 17 lañ fayeeku bii nii wóoruñu sax ndax dinañ fayeeku suñu doom yi jàngee guñu inscrire suñu doom yi am nañ problème location problème bu ne te dara mosuñoo dal si lu mel nii dañoo bëgg lii mu dakk dañu bëgg mu dakk ci boppam bu dakkul ñun waa des médias si boppam boo moytul ñun dinañ tamit dinañ wàcc sur le terrain parce que nag gars yi ñu ngi ñuy xeexal mais aussi il est temps que ñun tamit ñu wàcc parce que toog ci plateau yi di wax rek man dama gis ne doyul quoi il faut que ñun tamit personnel des médias ñu wàcc sur le terrain. boo waxee loolu yéenay otage am nañu ay jafe-jafe jafe bi sax mën na bañ a metti ci ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany mais am ñi fa nekk di liggéey oui c'est vrai parce euh, na ko ko wax l'autre jour na moom euh, des médias un pour cent au business am la mm. suñ ko tëjee du ko wàññi dara mais ñun lay wàññi kon nag dégâts collatéraux yi suñu lay dal te suñu la dal fu mu toll nii kon c'est à de euh, de prendre le bras prendre les en main ñu ñu tamit ñu def suñu suñ suñu li ñu a def en tout cas dañu woo état ñooñu waa DGID yooyu noonu waa waa impôt domaine yooyu def lii nii nañuy jàpp ne ñoom am nañ njaboot inscrire nañ seen ay doom yóbbu nañ seen ay doom ñu jàngi France ak fu ne mais ñun suñu doom ñu ngi xalaat mois bi nan la ñuy def pour inscrire lañ nañu xalaat njaboot nekk sénégalais bañ a def seen bopp comme ay étranger ay sénégalais comme ñun booy xool ñoom ku ci nekk am nga mbokk si ñun ñi kon nañ ko xoolee foofu noonu quoi nañ ñu dimbale ngir yàlla xool ci yàlla président de la république ñu koy lancé appel ak ku mënta mu xoolaat un peu bi nga xam ne moom mooy am si des médias Pa Maguette maa ngi lay gërëm mais président noonu li ma lay wax man sama sama yaram dafa daw. parce que dañu partagé ay moments yu yu doy waar. yaa ma formé. ay ay moments yu doy waar. yow yaa ma yaa bu ñu koy wax bu ñu koy wax suñu suñu xol dafay fees trop. trop mm. trop trop nañ ñëw dóorandoo ay lacrymogène. wër na yàlla dañu partagé ay moments yu doy waar président. waa waa impôt domaine xaw ma xaw ma lan moo nekk si ginnaaw. Uh-huh. xamuñu ba xam bugaan fay naa fayul ñun suñu yoon newu ci. Uh-huh. mais li mu wax nii c'est très important. ay doomam dañuy jàng man xam naa ci dara. Uh-huh. xam naa njaboot gu mu yor. ah nañu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax xale yi ba léegi nii je te jure. waaw employé leen bàyyi xel bu baax a baax bu fekkee nag beneen xeex la ñu jéem xool beneen xeex. Mm-hmm. xale yi jàngee guñu. waaw xale yi jàngee guñu je te jure. Mm-hmm. xale yi jàngee guñu inscription yi mois bi passé le 17 lañ la fay suñ la fay le 17 c'est parce que traîné nga ay bor yu bëree bare bëri. traîné nga ay bor yu bëri ba le 17 musul am le 29 yow fii nga nekkoon xam nga nu mu demee taf taf ñu fay la sa salaire directeur boo ko ñaanee sama am lu mu la si mais nii nii le 17 lañ fay ak bi passé ay bor topp ñu mois bi wóoruñu sax ndax suñu doom yi dañuy jàngi am déet inscrire guñ suñu doom yi kon nañu dimbali waa waa lañ am ñoom ñu ngi inscrire seen doom yi seen doom yi ñu ngi dem jàngi dem fu leen neex mais ñun nag nañ ñu xalaat ñun ñi ñu ñun itam ay sénégalais comme tout le monde am nañ droit suñu doom yi dem jàngi ñu inscrire fay loyer fay courant fay ndox ñëpp xam nañu suñu famille sénégalaise dafa yaatu salaire bi ngay fayeeku doyul dara bu ñu demee nag ne ko tekk nag dafay gën a métti kon nag ñu ngi leen di ñaan yërmande yërmande yërmande